Serigne Abdou Lahad Mbacké nekkoon troisième xalif général des Mourides màggal gi ñu ko jagleel amaloon nañ ko fii ci Touba Mbacké ci dimanche dëppoo nag le 14 mai 2023 ñu dundal ko nag fii ci kër Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Abdou nekkee ci yoonu njurul bi ci njàngum alxuraanul karim njàngum xasida ak bernde boole ci ay ziyaar yu yaato yaatu yoo xam ne amal nañ ko ci kanamu sëriñ bi soxna Dior Amsa am taxawaay bu am solo ci biir kër gi nga xam ne mooy kër kilifaam di sëriñam ci taxawu mboolem gan ñi nga xam ne dañuy ñëw ci màggal gi ci kër gi moo xam taalibe la moo xam kilifa la mbokk wóllëre képp ku ñëw ci kër gi rek taxawu na la ba tumuraanke benn yoon ci wàllum bernde ndax moom jàpp na ne képp ku ñëw ci màggal gi fii ci kër sëñ satu Mbàkke moom sëriñ Abdou Lahad moo la war a taxawu ba keroog ngay dellu moo tax mu takk ndigam laxasaayu fas yéene doon bàyyi faalub sëriñ am Amsatu Mbàkke taxawu ko ci wet yépp moo tax li nga xam ne moo jëm ci wàllu bernde yi def na ci lu mu mën ak lu mu mënul sëriñ bi nag bi mu xëyee ba ñëw teg bëtam ci jëf ji nga xam ne soxna Joor sa jëfaat na ko ci màggalug sëriñ Abdoul Ahad édition bi sëriñ Amsatou Mbacké da cee bëgg lool. waaye nag sëriñ Amsa nee na. sagal nga ko sag boo xam ne mu ngi ñaan ci dara ji sëriñ Abdoul mi moom bis bi yàlla sagal la sag bu ko. amiin amiin ndax yàllaa leen boole. nga xam ne sang la. nga nangoo doon jàmm jàppe ko sang. boo ëllëgee koo taxawal mu dib sang. yoroon sa ah. bali suul sëñ Mbacké Maram kenn du moom. tàllal leen sëriñ baa ngi ñaan. man dugg naa ci biir. mboolem gan ñi nga xam ne nag ñëwoon nañ ci kër gi kenn ku ci ne seede nga ak cant gu kawe jëmale ko ci soxna am Amsa ci nii nga xam ne noonu lay taxawoo kër gi ci wàllum bernde ci màggalu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké gi nga xam ne at mu jot da koy gën a yokku Dior nag takk ndigam fas yéene doon Baay Faalu sëñ Amsa boo nee Dior sax doo nee Dieng waaye da naan naan am Amsa loolu nag li ko ko may mooy bëgg gum bëgg sëñ am sa waaye def ko sëriñam def ko xaritam di liggéeyal sëñ Amsa guddeeg bëccëg doon Baay Faalam ñaxam alalam daraam du fekkee soxla sëñ Amsa bu koor gi ñëwee da nga naan joor weer koor rek la mën a def ay bernde ak i ndog yu baax waaye ba màggal sëñ Abdou Lahad jubsee amatul guddi amatul bëccëg mi ngi woote ngi waxtaan ñi ngi reño ngir rek sàkku mbégum sëñ Amsa ak dàkk mbégam. Joor sa nag yàgg naa koo dégg waaye Joor Amsa mii moom exceptionnel la bokk yi teew ñi nga xam ne moom ñoom la bëkkal liggéey bi ci biir kër gi ak ba ci biir Touba bokk yi ku ñëw ni ana joor te li war li lépp sa digganteeg ñoom def na ko kon nag ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla barkeel. diggante bi waaye yal na yàggal yàlla yàggal fi sëñ am sa mbàkke mi nga xam tuwaar kàlla Touba gépp bàyyi ñu ko xel. soxna Oumy gay mu jàppale nag doomu ndayam soxna joor Dieng macha allah ñu ñëw nii daggal ñu ay hôtesse mm-hmm. ñu lekk ba suur naan ba màndi jox ñu paas ñu daal di ñëw wax jox ñu paas ñu dellu macha allah daal màggal gi daal yàlla nañ ko fi fekk ay ati at ci barke Cheikhul Khadim soxna Dior Amsa nag ci bisu màggal gi ñëw na ziyaare si Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Abdoul Ahad di sëriñam di kilifaam di léppam yees luwaat ci moom fas yéene taxaw temm ci lépp loo xamante ni moom mooy ndigalam nee mi ngi lay gërëm ànd koog mbokkam mi baax yi ma madame Mbuub jiite leen ak hôtesse yi nee na Adja Dior nee na sëriñ bi yow mënoo koo def dara ndax danga koy def danga koy defal nee na mosoo koo def danga koy defal ndax def dafa am defal am ku dégg def wóorul defal nag moom teraanga rekk la Adja Dior ak mbokkam baax yi sëriñ bi mooy gërëm di delloo njukkal. am na loo xamante ni nii yàlla sax dafa ni bu ma toogee bu ma la defalee sant ma. sëñ bi di leen xamal ni mu ngi leen di sant cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yam yéen soxna yii yëpp soxna Joor yaa ngi mel ni yow sëñ bi mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla nangul leen seenu liggéey ngeen yàgg koo liggéey te yàgg ko fekk. moom day danaay wax ni ànd ak moom dafa yomb ndax sëriñ am sa nit ku tabe la sëriñ Amsa nit ku labir la sëriñ Amsa nit ku jàmbaare la nit ku dul fàtte démb la kon nag sëñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal liggéey bu ñu nangu fan wu gudd wërsëg wu yokk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wala joxe ñam nag yombul rawatina ca joxin wa soxna Dior Amsa fii rek la teg tànkam fas yéene dox ak taxawu kër sëriñ Amsatou Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad ci lépp loo xam ne daf koy jëmale kanam lii muy liggéeyal sangam bi mbégte mu kawe la ciy àndal saa su ne